ñu seet si ki nga xam ne mooy ab du Abdou Lahad Ndiaye médecin ñu gën koo xam si Abdou laxat njaay soppu sëriñ ab du Lahad Mbacke sama cameraman soo bëggee xam li may def si biir fekk ma ci biir ndax mbir mi moom fii dong la. moom ñoo ngi yëngu si njaay njaayu mooy njaayu mercerie yi mhm. loo xam ne lépp loo xam ne téer yi soxla nañ ko mhm. ba di ko utiliser di ko def si seen i yére mu gën a rafet boo ñëwee fii da nga ko fi fekk ndax mhm. Abdou Ahad Mbacke borom daare kaamin suñu lépp moom la ndax lépp moom na nga ko jëmale tuddaleel ko ko waaw fii nag boo ñëwee si diwaanu marché Guédé foo laaj place bi bàyyi laat mi sir après dinañ ko wan mhm. lii buket yi ngay gis nii waaw lii si xeetu bees bees yi la boo ko dañuy jaay garniture ba pare boo ñëwee ñu tegaloo ko lii ah, tegaloo kon yow maanaam dan lay nit day ñëw jënd ba pare nga wëlbati ko tegal ko tegal ko ko waaye kon askan wi yéen a ko déggandoo ci kay masha mooy bomb mooy bomb waaw mooy bomb mooy bomb eh, ñun lépp lu bees loo xam ne nit ñi bëgg nañ ko rek dañ koy dem wuta ji pour jox leen ko quoi ñoom ñoo tax ñuy sonn ñun ñoo leen fi bàyyi wax dëgg yàlla maa bëgg seen bopp sa yàlla tax ñooñu mën nu ma leen a fay nag ma leen di sant di leen gërëm Touba diwaanu marché Guédé mhm. soo laa ci place bi laaj mercier dina la ko wan 78 105 21 14 bu nekk Tigo bi tamit 76 752 57 48 incha allah rabi boo ñu si wooyee da nga ñu jot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 baadoola sëñ Daouda yaa baadoola bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaay baadoola bilaay mooy baadoola digle koor gi fii ci koñ bi boo xëyee sa kër koor ka fay tàggoo waaye balaa bi nga dog koor gi nag loolu dama kaa biireegul eh, mm-hmm. ah, kay yii waaw man mën naa ne de. moom kay moom xam nga lépp laay dajale lépp. ah waaw lépp kay ah, ne ba rek. xale yi daal waaw hmm. waaw mën naa ne man naa ne mën naa ne. mën naa ne da ngay joxe juróomi junni rek bu ko defee. bu ko defee ñu daal di koy ñu daal di koy ñu daal di koy. gi a jàpp. ah xam nga ko ne xam nga ne koor gi maanaam a juróomi junni ah, ñaari ah, junni laa yor daa metti de. waaw ah, ñaari junni nag wax dëgg yàlla nag yooyu soxna si nag xam nga nag su ma ci bëggee def am na ko commencé woon xam a tax kat nag ñaari junni xam nga koy commencé boo may tuuti da ngay mujj def nam def rek kooku sax fuy junni yow ma laa yërëm rek ak koor gu metti gi ba ñaari junni dong nga ci mën a ñaari junni kese laa yor kay ne baax na baax na baax na. ah baax na baax na baax na ah, baax na waaw baax na. commencé ko ma ci biir. baax na waaw baax na baax na maa ngi ci maa ngi ci baax na. Ah, moom kay incha allah moom ci kàttanu yàlla ak yonente bi moom. moom moom moom danañ ci danañ ci danañ ci danañ ci nu mu tuddati moom. incha allah moom dinañ ci danañ ci nu mu tuddati bu baax a baax a baax xam naa ne moom dana metteeg man waaye moom fa tabarakallah moom des na ci kii des na ci nu mu tuddati xam naa ne roñum birig moom. xam naa ko bu baax metti na lool metti na lool mooy mooy samay baax kooku moom mooy samay baax moom bismillah xam naa ne na waaj a defoon ba daw xam naa ne boo moytuwul man mii. laa ilaaha illallah jaay waa ji le ah moom ñaari junni ñaari ñaari man damaa juum ah. ah, maa ngi ci kay. maa ngi ci waaye métti na de. damaa jëndoon xaal bi bëgg nga seetlu ci. Ah, yee damaa wóor yow. ah naka pexe. doo am jom rek. saal baa ngi nii xanaa ngi kii ko rek. waaw baax na baax na jërëjëf baax na yow da ngaa baax moom ah, da ngaa baax da ngaa baax kii ni nga koy gisee ah. man na man na man na man na ah, lépp man na lépp waaw waaw taakaar la kay moom da ngay rek da ngay man moom kay metti na ma waaye jërëjëf rek baax na kon ma continuer ci liggéey bi rek. Ah, kon soo paree maa ngi ci biir rek nga jaar fi ñu jël xaalis bi kon jël ñaari junni. waaw baax na waaw baax na ah, baax na jërëjëf ñaari junni da xam naa ne moom. Ah. boo ci mënoon tegu si lëf dana baax. <laughs> yow ñu xanaa njaay nga moom kay xam naa ne doy na waar moom. waaw moom kay dañ koo toj dañ koy toj a toj a toj xam naa mii de xam naa ne dinaa toj <laughs> man xaalam bi moo jox sax man du ma ko yër ba xam moom moom ñor na am déeta xaal daal daanañ ko bérëŋi bu taqee suuf ñor na waaye moo ne daa nañu taqan suuf de ah waxi dof la rek loo bérëŋ ci suuf mu taq suuf ah kii daa xam naa <laughs> ay waay waay la ilaha illallah ñor na de moom xanaa saf suukar laay wax kay <laughs> ah kii ñor na kii moom ñor na moom xanaa suukar kay nag laay wax moom moom du ko seeta ba xam moom <laughs> ma xool ko ba xam wax na suukaram déet hmm, hmm, hmm. saf na suukar xaaral ma xool côté bi ngeen ko xaaral ma xool côté bi baa hmm. doola <laughs> <laughs> bay ba